amateurs yi mbokki jaxaaw fans club Boucar Ndour bu Lutte TV ñoo ne le samedi 21 mai 2022 sele ba yoonu lamb ci jaxaaw siin lay doon maanaam amateur yépp a fas yéene daje ci jaxaaw siin àndandoog fans club ba ñu amal leen grand gala de lutte di lutte traditionnelle mise ba di 1 million de francs fa ñu ne bi la bés nag dañu ko jagleel seen soppe seen xarit muy Badara njaay maire de Thiaré Dial gi nekk régisseur des bourses ñu jagleel ko bés bi fas yéene koo sargal ndax taxawaayam ci réew mi ndax njàmbaaram ndax ñëpp nattable wuñ ne monsieur Badara Ndiaye liggéeykat bu bu kenn dul werante la ñu ne nag bu ñu yàggee ca bés ba animation ba danu koo dénk mbayang lum mu nar a feggoog Momo Ngom nga xam ne ñaar fu ñu làng amateurs yi kontaan fu ñu làng mbër kontaan waaye fu ñu làng événement boobu duggee géey ñu ne nag dañ cee fas yéene décoré ancien gloire boo xam ne lu ne def na ko ci làmb ñu gën koo xam ci tombé seen kon bés baa ngoog le 21 mai 2022 ñu ànd ak fans club Boucar Ndour bu li TV wàcc ci jaxaw wàcc ak mbër ya def foofu lu amul fenn ngeen jëf mbokk amateurs yi ñoo ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziare ñoo ngi fii Tivaouane Pël Modou Anta mm-hmm. Assane Ndiaye moo ñu fi woo borom Bawal production ci remise de drapeau bi nga xamante ni Basirou Ka la koy defal yaakaar naa ne c'est pas la première fois mu koy tuddee li nga xamante ne moom moo di làmb mm-hmm. waaye nag yaakaar naa ne combat bi mu ko tëggee cette fois yi wute na lool ak combat yi mu ko doon tëggal mm-hmm. ndax Youssou Ndour la jël boole ko ak ki nga xamante ni moom mooy Mbaye Diouf yaakaar naa ne Youssou Ndour ñëpp xam nañ ko école de lutte doom ci Balla Gaye numéro 1 maanaam dafa donn làmb ji ki mu bëreel nag doon daanaan champion yi fi nekk yëpp mu bëree ak ñoom poids lourd yëpp mhm. bëree na ak ñoom moo tax Assane Ndiaye ñëw dajale leen fii basiru ko génn ànd ak ay mbokkam ñu jébbal ko li nga xamante ne moom moo di drapeau bi ñu waajal dimanche le 22 mai incha allahu rabbi au stade Iba Mar Diop ci diggante Youssou Ndour ak ki nga xamante ni moom moo di mbay Diouf ay combat spécial bi tamit moo ngi fi Basirou ka moo ngi fi ay mbokkam ñoo ngi fi comme ni mu ko defee woon rek yàggul dara gis nga fi ñi nga xamante ne ñoom suñuy papa. Mhm. gis fi Fadam tu gis fi tam suñu père Pala. père Basir Thiam xam nga ak père Sala bi. ana père Sala. père Bour <laughs> ñoom ñëpp ñoo ngi fi. mais nag fe gis dama fekk samay samay samay yaay mën a way. Uh-huh. sànq nag damaa fokkati ci ñoom micro bi ubbi. dama bëgg ñu ñëw ubbi jotaay bi. wayal ki nga xamante ne moom mooy Assane Ndiaye wayal Basirou Ka wayal ñaari mbëri. géwél nag pour muy leer mère Diagasil géwél baax na cim réew bu xare masaana am géwél daa damay laal ne leen alaaji Basiiru Njaay fu nuy fanaan tey moom moo woote fii ànd ci ak frère am Basirou ah. di nuyu buur géwël di wax ni suñu teewaay fii tey teewaayu mbëgte la teewaay la boo xamante ni teewaayu feddali kóllëre la ndax Assane njaay damay wax ni dañu yàgg ak moom biig rek toog nañu ci benn télévision ma ni ko combat bi nga njëkk a tëgg soxna yi bu ngeen ñu mayoon wax dëgg yàlla may leen ñu nag li wax ñor nañu de may leen tuuti rek euh, biig ci guddi toog naa ak Assane Ndiaye mii ci benn télévision bu ñu ko invité woon ma ne ko combat bi nga njëkk a tëgg mat na fukki at ak juróom grand combat ba maa engagé woon menn mbër mi muy nees kon suñu ànd ak moom yàgg na nees ak Pape Sène ñoo ko bëre woon ñoo ko bëre woon waaye biig ci guddi dañu def émission Basirou Ka dugg ci émission bi wax ci wax yu pertinante bi ñu yeewoo mbër yu bari ci senegal wooñu di ñu yóbbante nuyoo ci moom ak teraanga yu mu leen defal kon kii du drapeau bi ñu ko tuddee moo waral mu jóg ci làmb mais yàgg na nekk facteur de développement boo xam ne mi ngi dimbali xale yi di dimbali mbër yi te booba amagul drapeau drapeau bi nag édition bu yàgg la digganteem ak Assane Ndiaye diggante bu yàgg la diggante nag soo ko defee ren def ko déwén defoon ko déwén jéeg kon kóllëre dox na seen diggante kon ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen félicité di félicité waa Tivaouane pël yëpp di wax ni combat bi ñu ko jox tamit combat bu am importance la li tax ma ni combat bu am importance la xale bi nga xam ni moom mooy Youssou Ndour bi muy ñëw ci làmb papaam di jàpp ci loxoom dama ko daan wax ni ko kii mënul nekk mbër ndax dafa tuuti booba ay 10 ans la am papa ji di ko yóbbaale ci ay làmb kon dafa dund làmb jàng ko liggéey ji ba tax tey mu yegsi ci niveau bi di bëri ay grand combat kon xale la boo xamante ni heure bu ñu ko tëggee rek mu neex waaye ki muy bëreel moo am taxaw seetlu mbay Diouf différence génération la am ak ki nga xamante ni mooy Youssou nduru ndax mën naa wax ni lu mat fukki at ci ginnaaw daje na fi ak ñoom Eumeu daje fi ak ñoom Souley doog daje fi ak ñoom Baye Mandione moom mbay Diouf mi toog kon tey kenn mënatul wax histoire làmb te tudduloo mbay Diouf mu nekk combat boo xam ne nag dafa nekk en hauteur doon combat boo xamante ni ki ñu ko tuddee jar na ko ndax facteur de développement la yàgg na sonn ci làmb kon bu ñu ko joxee combat bu rëy nii am na solo moo tax bokki Tivaouane Peulh daal am na ñu mbégte bu baax a baax di wax ni dañuy jox rendez-vous rek ñëpp dimanche ñu ànd ak Basirou Ka gunge ko làmb ja mu def différence ñaari mbër yi bëre mu neex combat préliminaire yi bëre mu neex maa ngi leen di ñaanal jàmm jëre ngeen jëf. jërëjëf jërëjëf suñu père Pala. ñaari waajur di sant sama yi ma fekk yëpp ak sama yaay yi fi nekk di sant presse bi tamit maa leen nuyu yéen ñëpp waaw di béggee tamit sponsor bi di wax ni lii naas na torop ndax gëj nañoo gis sponsor si làmb waaw di béggee waa Kër Mbay Fall yëpp nag gën a waaw sama papa joxaane maa ngi koy rendre hommage xam di woo waa Kër Mbay Fall yëpp nuyu Abdou Karim gis naa ni mu def xam Mm-hmm. autorité tamit ñu ñëw jàpp si xam ne affaire yi waaw góor jàpp si góor la quoi góor yedd la góor fa yàlla mm-hmm. di bëggee ñëpp kara maa lay nuyu Lamine Ndiaye naar bi ak chauffeur bi ah di nga woote am na solo ñu gëj laa gis sa combat Darso bu ñu juumul boobu ba tey ci lan nga nekk ba nga am sa digganteeg Bécaye Bécaye mi am nga client booy boo kii kii kii client la mm. ma yow kii client bu ñuy lekkale léegi nii la déranger la barki Serigne Bamba kii bu taxawee dama koy ñiing du ma ko jooy sax. da koy ñiing. tegal foofu sa loxo. jël muy yàgg. alaaji bekkaay mu sell mi. maa la siyaar bu baax. delloo siyaar. onze billah bismillah inna wala yàlla jërëjëf borom Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ginnaaw ma sant yàlla julli si yonante bi di sant samay ñaari waajur di sant sama sëriñ borom daaru Noreyni di ko ñaanal yàlla li mu naala liggéey seen naa Ousmane mu eggale ko Cheikh Maladio Petit Ñaa Thier Kërsu sama toos di nuyu waa presse bi yëpp di nuyu di nuyu promoteur bi Assane ak suñu père yi fi nekk ñëpp waaw am na solo Petit Ñaa du dara Petit Ñaa mooy ak waa buun bàyyiwuma leen cat ba cat am na solo ñëwal ci li mu wax nee na dalay xaw ma loo wax yow waaye kii du pousse du passe du pousse du passe du tous la nag maanaam bu taxawee dëggal boppam na dëggal boppam seet musul daw bu dëgalee ba ma combat du yàgg li ma koy wax. te bu leen laalante. ma ne li ma koy wax le jour si lay comprendre. bu dëgalee boppam. bu dëgalee boppam combat bi du yàgg. tontu si loolu. waaw. góor bu mënul xeex. bu leen laalante. da ma ne. bu mënul xeex loolu da koy yomb. yow comédien nga da ngay théâtre le jour si ngay comprendre yow. doo puus doo paas. amaa kaay ma def la lu métti. amaa kaay nii xam naa ko waaw loolu loolu nga teg ba jour le jour si nga dëggal loolu nga xool jërëjëf am na solo loolu am na solo mais dama leen di wax ci tàkkusaan si bi ar bu tëyee bëreere yow bekkaay may ma ama ama déglu c'est bon baax na baax na baax na baax na am na solo ci saan gi ngeen di bëree carrière dafay bëre Toubacouta dafay bëre malam ñaani Youssou Ndour a ngi nii toog Géejawaay nekk si ginnaawam mbay Diouf a ngi nii Bawol sans frontière nekk si ginnaaw fan ngeen toll ci mobilisation bi ak ñaata kaar. waa ñun ñu ngi mobiliser wu ainsi lu ñu mën. supporter dañoo yàqam ci biir sax li ma lay wax nii. buun cat ba cat yëmbal caaray Malika benn baraak Kër masaar buun Joola buun buun Daaru Salaam buun set loxo buun buun EDF buun xayra. woo leen ñu ngi koy waaj. woo leen. woo naa leen ñoom ñëpp. le jour ji allah nañu waajal. bu yeexee moom ay supporter am duñ ah. am fuñ toog. am na solo Bécaye demal nga toog. wool waa Kër mbay Fall. waaw di woo waa Kër mbay Fall yëpp nag ñu ñëw jàpp si autorité yëpp nañ ñëw jàpp si xam waaw di woo waa Kër Mbaye Fall Kamb Riris Tool Diaz si xam nga. am naa foofu xarit Mbaye Thioune. waaw Mbaye mbay sama di ko woo moom tamit si combat bi Mbaye maa ngi lay woo bu baax. jërëjëf Baba Tall maa ngi lay woo ah. jërëjëf Abdou Karim xam nga monsieur le maire maa ngi koy woo bu baax a baax. Ndiaye pharmacie. jërëjëf bëgg ñu jàpp ci jërëjëf balaa bekkaay xalaat dem leen ngeen ñu ngi waaj combat bi. ñoo koy gën a waaj sax waa Dakar. loxo am na solo joxante leen loxo voilà xool leen caméra yi xool leen muy koo xam ne ni tamit euh, benn défi rek laay lancé. képp ku jege président Macky Sall xam ne kii ku ko yàgg sonal la ku yàgg sonal président Macky Sall te mus ci am benn intérêt boo xam ne nii ànd naa ak moom muy politique ànd naa ak moom ñuy def lu nekk di fanaan ngir président Macky Sall ànd naa ak moom ci lu nekk man mii boobu maa ngi moom daan ànd muy jël ay alalam di ko jaay ay biens te mus ci am benn revenu képp ku ñëw di ko nax ci président Macky Sall sax da koy am. moom day xam ne danga koy nax waaye da koy def ngir ngir këm bëgg kon tey ji ak lépp lu métti métti rek muy nit koo xam ne nii ku yàgg sonn ci APR la te jot na président Macky Sall ñëw jàppale kii nga xam ne nii doomu Tivaouane Peulh la ak Kër Massar yëkkati ay moyens jox ko mu liggéeyal ko li mu bëgg ndax ndaw la te koo xam ne nii ndaw lu ko yàgg a sonal la waaye Lamine Basirou Ka buñ ko Assane tuddee làmb promoteur yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yi ci ëpp kóllëre wàllu prin Assane Ndiaye la ñuy wax ndax ñam doon àndal barkaati démb ba léegi mu ngi leen di tuddee ñu nekk ci pouvoir ak ñu ñàkk nekk ci pouvoir yëpp seeni i mu ngi koy dox ba léegi waaye bi mu àndeek ak Basirou Ka xamul ne Basirou at mu ngi ci ay fonction nekkul ci fonction saa yu teraanga ji jotee da koy ñëw yëkkati ñëw jox ko Basirou Ka di fi teg imaamu ratib dëkk bi di teg tous les notables yi nga xamante ne ñoo dëkk ci dëkk bi ñu jiital ci suñu nuyoo le premier magistrat de la commune de Tivaouane Peulh ñàgg muy monsieur Momar Sokhna Diop ñu teg ci nag ñi nga xamante ni tey ñoo yor wàllu administration dëkk ci Tivaouane Peulh yépp dégloo di delluwaay di nuyu la jeunesse de Tivaouane Peulh nga xamante ni ku xam Basirou Ka xam ko ak jeunesse bi jeunesse Tivaouane Peulh def en masse ñi ngi ne le toog kenn desul ñoom élage ba ak gaa yëpp ñu ngi ne la toog waa mafia bi di nuyuwaat bu baax a baax suñu kilifa yi ñu fekk di alaaji Basiru Caam dogo nekk suñu nijaay ak burgéwal sama rak ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk si table bi yëpp di nuyu madame Binta Sarr mi nga xamante ni mooy madame la conseillère présidente mouvement BAS pour le développement national et international di nuyu Fallou Diagne mi nga xamante ni moom mooy président ànd dooleel Basirou Ka di nuyu nag BAS yi nga xamante ni ñoo jóge ci gox yu fasantikoo yépp ndax ku xam BAS xam ni mouvement la boo nga xamante ni dafa yaatu bépp commune boo dem wala localité boo dem am nañ fa siège beneen bi maa ngi nuyu Tambour Major Amari Seck ak ñi nga àndal ñépp beneen bi maa ngi nuyu suñu grand ki nga xamante ni moom mooy Assane Ndiaye Bawol production di la wax Assane tubaab dañu quand deux verbes se suivent le second sommet en l'infinitif woo nga ñu arène nationale ñu fekk si la nga woote waat ñu fekk si la bi paa nga woo ñu. maa ngi leen di di gërëm suñu maa ngi sant Serigne Touba bu wér di wax jërëjëf Serigne Salif maa ngi nuyu presse bu baax a baax fu ma jëm maa ngi ñoom ñu ànd lu ñu wax si lu ndaw ñu tasaareel ñu ko ci adduna bi yëpp di nuyu diaspora bi di nuyu mbër yi rawatina Mbaye Diouf moo nagi moo frère di nuyu Youssou Ndour sama fils la papam dénk na ma ko yàgg na maa ngi koy nuyu baax baax bu am jom la am honneur Fala ah, maa ngi lay nuyu nuyu bu gëwël bu Basiru Kab nuyu Basiru Basiru Thiam ñëw rek ci waaw Lamine Lamine moo lu le o oh. moo lu le a tey mi kaw mag waaw jërëjëf euh, di nuyu Basirou Ka bu baax di wax li ñuy wax si man rek si moom la nekk tudd naa ay nit ay drapeau ba tàyyi waaye saa su ñu ko tuddee drapeau wax dëgg yàlla daf koy teg lépp ci yoon ànd ak waa Tiwaawan Pël ñëw bii mooy troisième édition maa ngi ziare bu baax a baax baax waa Tiwaawan Pël yëpp di leen bége bu baax comme ni ko Sayer waxee rek moom it ma koy nuyu sayer mu nit ku baax di nit ku dëgg li ñuy jokkalante man ak Basirou Ka yëpp si loxoom lay jaar mu wax ma ne ma lépp lu la Basirou Ka wax jàppal na dina ko def ndax dafa am kàddu te xam na fi mu jëm ma toog di ko déglu la wax lépp mu def ko ba sayer euh, maa ngi lay siyaare bi ñëpp ñi nga ànd ak bas nit booy ànd ak moom da nga koy wax dëgg doo ko jay da nga koy jàppale maa ngi lay jëlee baax a baax di la wax nag ne euh, li ñu koy def dañu def dañ dugal ci ay combat ñu defaat ko dugal ko ci combat ñu xam na nag bas mat na mat na li mu doon jox jël bis bi yëpp jox ko yaa ngi dégg mooy nit koo xam ne lépp loo ko lu mu waxante ak yow dana ko def maa ngi koy gërëm baax a baax li ko wax na nag bis bi ci kàttan yàlla lépp lu war ci làmb pour amateurs yi kontaan danañ ko jiw ñaan yàlla mu mottali ko ñu ngi nuyu mbër yëpp képp koo xam ne tey dañu ñëw rek pour def remise drapeau pour sénégalais yi xam loolu mais li dag tëgg ci ay mbër képp kuy amateur làmb boo ñëwee le 22 Iba Mar Diop di nga fa gis làmb di nga fa gis cosaan di nga fa gis aada amateur bu ñëw si kàttanu yàlla Iba Mar Diop di nga ko gis lamb bi di nga ci bëgg ndax lamb bi ñu ko bëgg ko foyee te bis duñ ko coof maa ngi siyaare ñëpp jox rendez-vous bi rek Iba Mar Diop jaajëf. turam ak santam may jiital ci nuyoo bi suñu kilifa suñu kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci bi. ñu jiital ci rek monsieur le maire Mamar Soxna Diop di ci teg suñu papa yi ak suñu yaay xamante ne ñoom ñoo dëkk ci commune Tivaouane Peulh ñàkk ñàkkuram ak li ko wër yu sant sama mag yi nga xam ne teew nañu fii ak sama yaay ak sama rakk wax dëgg yàlla sama xol dafa sedd ci bés bi wax dëgg yàlla ndax mbir yi sax waajuñu ko comme ni ko seer waxee maag grand asam bër ci démb lañ ci déggante parce que jour boobu sama sëriñ dama woon waaye ma nekk ci yoon bi ma nekk suba ñu confirmé maanaam ci ñaari fan lañ ko wàññi te bés la boo xam ne dañ ko fonk moo tax ñu taxawee ci ñun bu ñuy gan yi nga xamante ne tamit ñoom ñoo ñëw ànd ak grand asan ak sama gan yi nga xam ne ñoom it sama ganu bopp la ñu jóge fu sori ñëw pour fekkee lii ma jël nuyoo bi rek teg ko ci sama loxo turandoo sama pap sama xarit sama conseil di sama lépp xam ne sama tàmbali démb mu xam ci lu bëri gunge ma ci lu bëri lu nit yëg ak lu ñu yëgul ba ñu agsi fii muy sama pap ba seen jàmm maa ngi lay nuyu bu baax maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm bu baax a baax ci sa taxawaay ci dëkk bi ci commune Tivaouane Peulh ñàkk ñàkk yow da boole rek waaye doo xàjjale loolu mooy lu am solo di nuyu tamit suñu papa góor géwél ak suñu papa Baal xam ne ñii kuy wax lamb ba ak ñoom rek maanaam ak si nga ci cëppandaw bu dee xam lamb yàlla may na leen am luñ ci sabu waaye damay dégg ñuy wax ay kaddu yu am solo dem ba ba ma duggee ci télé bi rek maa ngi koy expliqué ndax man nit ki noo mënta mel ci àdduna daraja boo mënta am soo dul wax lu baax du ma la dégg waaye damay dégg moom dañuy wax lu baax di conseillé xale yi lu baax ndax réew mi fa la toll eh, ñoom ñi ñu jàngal tey bu doon ñëpp delloo woon nañ leen jukkal kon lu ñu bokk tey ñu am ndax ku nekk dugal nañ ci yow xam-xam ba tey nga mën a jëriñ say waajur loolu lu ma xam ne te sama at bëriwul te làmb miinu ma ko doon su ma ko miinee gën a sant kon maa ngi lay sant bu baax gërëm di sant tamit Fadam Deye di moom sama sama mag la moom ba tey ñoo nekk ndeysaan Omar dafa nekk nit koo xam ne e, xol bi moo rafet barki Serigne Touba bi ma yaakaar billahi wallahi wa taala Omar ku mel ne moom Omar ànd naa ak moom heure bu nekk heure bu nekk ànd naa ak moom waaye Omar bu doon moo yoroon caabi fi millions yi di la day tijji rek jox ngir yéene ko te mosuma yàqal mosuma gàllankoor kon Omar maa ngi lay sant di la ñaanal yàlla defal la jàmm barkeb Serigne Touba ndax yaa ngi tabbi si milieu làmb waaye fi ñu ko fekk yokkaat nga ko te loolu nag du lu ñaaw nga génnee lu raf ay kaddu yu rafet ngay wax moo tax nit yi di la seetaan boo dugalee vidéo ay millions yi nit di ko seetaan kaddu yu rafet yi ngay wax moo tax di continuer te bul teggi sa tànk ci loolu réew mi ñi ko bëgg a mooy ñuy wax lu ñaaw te réew mi tollootul foofu ñun ay xale lañu ak ay mag lañu àndal ay nit yi ñu am di nga dem ci réew yu bari fii yonent bi tëdd saa ñu fay fanaan génn ñu ndax am nañu Sëriñ Tuubaa am nañu Seydi Hadji Malick am na nañu Baye Niass am Limaamu Laay am ñëpp kon ñun dañoo war a xam ñi ñu doon fonk suñu bopp bu ñu jël suñu réew bi di ko paacoo di ko faral fàccee ci lu lu nekk ñu yàq suñu réew image boo xamante ne fu ñu ko wanee ñu ne sénégalais moo ko def suñu kilifa yi di di rus te képp ku leen di rusloo de ay bakkaar rek ngay am ba xëy faat loolu moom maa koy lancé message yi ñu xam kon maa ngi lay sant bu baax loolu ñu war a bëre grand combat bi le 22 mai allah rabi au stade Iba Mar Diop jox ñaari mbër yi saa may kaw ñu ñu ñu ma njëkkee ci nga xamante ne mooy ci ma ñu bay ju wax ak ñi nga xamante ne wax ak ñi nga xamante ne mooy waaw ma salaamaaleykum ginnaaw ma sant yàlla julli jërëjëf bi di sant sama ñaari waajur di sant sama papa di sant sama yaay di sant ñi fi toog ñëpp di sant sama supporter yëpp tamit di ko nuyu moom mi muy Youssou bi maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar waaw combat bi nag ñun jël combat ñun doo loo xamante ne nii ah, dañuy jaaxal parce que jël nañu jëlati jëlati jëlati bëri nañu lu bëri. yëpp waaw ginnaaw ma sant yàlla julli sant bi sant sama ñaari waajur di sant ñoo fekk sama doomu nday de benn ak nday ah nday fekk waaw di nuyu Adam di nuyu sama papa ak sama papa ñii ñëpp maa leen sant di leen gërëm sama grand frère waaw di gërëm ñëpp nag ak ñi ma àndal maa leen di nuyu di leen sant di ñaan yàlla rek le 22 yàlla suturaal ma ma dem. nga ne yàgg nga jël combat est-ce que combat yi nga daan jël ak bii benn xam nga loolu du ma koy wax xëy na ñu ma seetaanoon duñu ko mën a comprendre man bëri na ak 127 kilos bëri na ak 118 kilos bëri ak 106 kilos comprendre lamb nag moo demee noonu mën nga ñëw tey. pare ba pare ñàkk mën nga ñëw pare ba pare yàlla may la ndam yàlla mi nga xam ne mooy maye ndam nag yàlla ma yàlla may ndam ci kaw Youssou Ndour ci kattanu yàlla ak maa xam. amateur yu bari dañ ni business moo la dugal ci combat bi ndax ki ngay bëree xale la moo la doon suuf bu la jàppee làmb ji jeex nan wax. man maa ngi liggéey man damay liggéey man taluma business de man dama yor saw nekk ci liggéey ñu may xëy weer chaque weer ñu xëy ma sa xaalis ndax dégg ki ñu ko tuddee wax na loolu Sénégal boo fi nekkee fi mu ne fi di da ngay ñefe nag boo koy def pour sa famille la loo am ci sa famille nga koy yóbbu comprendre nga kon fekkoon ni loolu moo ma ci dugal kon damay yem ci sama liggéey wala de mais man làmb dama dafa nekk sama deret dama ko jël pour yow loo foog ne moom laa ko jël pour lan di bànnee woo lay manifesté wu ah non non non non non non dama ko bëgg a jël pour daan ko waaw loolu mu wax noonu xam nga moom daf ma jël pour daan ma ndax nee nañ dafa am technique xale la ay ñu nekk bawal ñoo xam ne ay samay morom lañ dañoo daw avance ginnaaw moom ma jëlee moom sant yàlla bu baax ku si mel ni buur si yóbbu nañ ko avance bu bañ kéwél yóbbu nañ ko avance bu bañ kon su ma ko jëlee nekkul question mag nekkul dara dama koy sant di nga gërëm ndax moomu jiit si làmb ba muy bëre bëréewu ma mais dara ndongo baa mu jël dooleem waaw nee na sarax doon baa ba mu jàpp ci dooleem waaw léegi nee nga sarax doon doo nga jaay ba mu ci bëgg dooleem mais nag dafa très attention dafa très attention booy booy loo fuuf laay kontaakal guddi ak bëccëg di daj ay coono yu metti te du ma di nelaw de néew ma la dajoo ay coono ci combat bi de mais te du ma di nelaw benn benn benn benn yoon barke yonent yàlla Muhammad te du ma di nelaw nee na Bour Sine dox nañu ko moom Bour Sine mu bañ ak kéwél loolu bu ko waxat loolu amul parce que ñoom man ak ñoom ñoo nekk defal ndànk rek bu leen tuumaal man ak yow la non man ak yow la déglu ma non non non ak yow la man ak yow la bul tudd buur sin bul fi tudd kéwél comprendre nga ñun ñaar ñooy signé comprendre nga signature contrat moo ñu fi indi mais bul tudd ñooñu waxal ci suñu diggante rek maanaam dafa bëgg wax ñooñu ay ragal lañ loolu la bëgg am non déggoo lu léegi xam nga làmb ji bëgguñu kii xeex di bëre te man damay xeex damay bëre da ngay xeex kii waaw kii ñëw ma ñëw pour daañ ko xeex di bëre boobu nga yow la concerné yow la ngay def yow la concerné mais man la may def moom du yow yaa ma ma la koy wax ah, dama ñëw pour rendre moom lu ma yàlla may mais lamb xeex di bëre moo fi mos a am lamb yi bëre doo kay xeex di bëre la boo xeexul bëre woo kay nooy daane foo nooy daane nit suñu papa Tafa Gueye moo ñu moom mag la mën na bëre kenn xam nga kenn daa ko bëre bu nekkoon xel mooy bëre ba tey waaw kon mu toog ci làmb ji mais daa raf doole kii dafa dese doole daa dese doole naa ko xam dara la vingt deux incha allah waaw wala dese woon rek loolu la vingt deux dina ci xam dara moom la vingt deux moom dina ci xam dara la vingt deux xam nga soreetul fi mu ne am na loo xam ne boo ko waxee sax daanaka safeetul parce que li ci des bariwul comprendre nga loolu la rek eh eh kii dafa war a jël revanche te sama yaay Kër Diop soxna bu ma ñëwee sama papa dem bàyyi ko fi muy teere dama bëgg ñëw dugal sama yaay. da mu tegal leen teere. mu tegal ñu teere man sama man moom lañ lay liggéey man.